mi ngi jël ay bokki boppam waaye dañoo leen a yóbbu fële ca Djibouti ngir mën a dem jële leen Soudan yóbbu leen Djibouti surtout personnel diplomatique bi gee ci aju loolu information la bu ñëpp xam li ci yees mooy taxawaayu américain yi américain yi moom lu leen nit weddi weddi weddi weddi wala lu ñu leen dingat dingat dingat xam ne yàlla jox na leen àddina ndax ñoom Joe Biden dafa woo Hamid Euh, ak it tamit euh, kii di Abdoul Fattah Burhan kenn ku nekk daf la jot ci téléphone satellite wax ak yow ne la bi sàngam daañu yónnee suñu ay maa ngi doon topp information bi démb barki démb sax laa ko doon topp ba léegi nii euh, wax leen na leen suñu ay ressortissant ñu leen jël si kenn ku nekk wax ko ne ko bu sooba yàlla daañ ci d'accord aar leen waaye américains yi comme ñoom zone buy tàkk ci àddina bi bu buñ fa yónnee duñ fa yónnee avion civil duñ fa yónnee roppalaan yi rek mu dem jëli leen déedéet ñetti hélicoptère yu armée blindé la ñu yónni euh, bi ñu ñëwee itam xamit euh, yi moom danaa dikkaat sax ci ay mbiram ndax waxoon naa ci benn groupe ne 2003 la ko Omar al Bachir woon mu nekkoon koo xam ne kii euh, rebelle la woon mën nañ koo duppee noonu nekkoon ci ñi nga xamee ne ñoo ne woon ca Darfour di xeex mun euh, Hamiti wax ko ne ko amul benn problème dana jël suñ protection yëpp Burhan tamit wax ko loolu américains yi nag naaw nañ ci jaww ji ba calculer seen diggante Soudan ñaata waxtu moo fi war a mën a nekk ban wax leen ko wax leen fi ñuy taxaw ci aéroport bi ban heure la ay génn américains yi ban heure la ñu nekk xam nañ fu nekk ak ni leen di jëlee seen ambassadeur seen représentant bi toftal ca nag ne leen suuf fépp suuf ba laalee benn américain c'est fini c'est ñuy ne yëngu-yëngaaral na way d'accord moom kay taarkalla nangam nangam maanaam loolu mooy information bi nga xamee ne africains yi ba yomal xiyaam boo deful ndànk Occident ak américains yi dañuy nekk seen buur mu nekk nag mbir moo xam ne lii euh, noonu la demee ndax Afrique gi am na ci yoo xam ne ba léegi mënunoo jëlee seen i seen i bokk Arabie Saoudite moom tàmbali woon na ko bu yàgg France kazalika mais américains yi ñoom dañoo def lu kenn deful dañoo yónnee ay militaire ñetti hélicoptère ba noppi woo gaa yi xeex ne arrêté leen arrêté leen ba ñu jël si li ñuy jël ba noppi àll na seen ndaw fi mu toll ni américains yi bu newoon dugg ci seen hôtel di dox ba ci aéroport baat tekk rek ngay dégg loolu nag ku xam lu muy firi nga wax ko te ñoom ci seen bopp ñu ngi rey seen bokki bopp di reyante ci seen biir di rey seen i mbokk di réewu arab américains yi jox leen digal ñu arrêté pour protéger ay ressortissants américains euh, fa tabarakallahu mbir mu doy waar la xamit yi nag waxoon naa ko ci benn groupe barki démb bu suma juumul ma xamatul ban groupe la na fay waxtaan ci waxtaan bu gàtt nag parce que Soudan moom ku yebbu di ci wax lu gàtt rek parce que ñu ngi xeex mënoo cee wax lu dul xeex waaye dama waxoon ne il faut ñu remonter 2003 uh-huh. parce que Omar al Bachir moo fa nekkoon 2003 mais comme euh, Hamid Timi nga xam ni moom moo doon numéro 2 bu euh, euh, Fatah Burhan 2003 dafa jiitoon ay ay ay milice ay ak rebelle nekk fële ca Darfour. Omar al Bashir mii moo demoon recruter ko pour xeex ak yi nekk ci Darfour nettoyé foofu ba mu jeex takk mu recruter ko jox ko alal lu dul jeex mais nag trafiquant d'or la woon waaw trafic or moom kenn ëpp ëppalewu ko moo tax fi mu toll nii mu am doole xaalis bu dul jeex la ko yàlla jox après nag la ñëw dugg ci armée bi nekk xaritu sawaay ñu bokkoon ay camp yooyu après mu nekk ci pale bi nekk ci garde rapproché bi Omar Bashir recruter ko teg ko ci wetam ba ne mu xamanteeg gannaaw coup d'état bi nga xam ne am na fa octobre deux ñu dal di euh, def seen partage boobu boobule mais lu jiitu loolu en 2019 kenn ku ne gis xamoon na manifestation yi fa amoon comme ni ko Cheikh Yahya doon waxee ci yokk mburu maag la ci aju ba Omar Bachir Omar Bachir ñu daal di koy jàpp génn euh, euh, déposé ko ak ya ci aju damaa bëgg a wax rek ne kii di xeex ak Burhan mu fa nekk comme chef de l' état jiite armée régulière ba ku mën a xeex la ku xam xeex la waaye nag dañ ko recruter woon mu nekkoon Samba Sourabali boo xam ne bii trafic la doon defal yooyu loolu c'était en 2003 te kat kenn waralu ko woon ku doon Omar al Bachir salaamaaleykum